Yaakaar moom mooy doon directeur de campagne am ci élection yi la di ñëw waaye moom njiitu réew mi ci week-end bi le journal réew mi quotidien di dina amal li nga xamante ni moo di remaniement ministériel le quotidien ne remaniement boobu bu amee képp ku nga xamante ni tànnuñu la ngir nga doon candidat benn bokk yaakaar yow doo bokk ci ñu war a tànnaat ngir nga bokk ci gouvernement bi waaye Macky la le quotidien dina xam le ni moom dafa baatrawaat li nga xamante ni moo di carte gi moo tax Amadou Ba nag moo gën a taxaw ngir jiite coalition boobu le tribune yéen a kaay ni ndax yàlla sax Macky Sall boobee ba léegi nag ñi ngi taxaw di ko xaar ngir mu fësal candidat benn bokk yaakaar boobule waaye moom jiitu réew mi mi ngi woo bépp militant wala ñoñom yi nga xamante ne ñoom la àndaloon ñu daal boot ci ginnaaw candidat bi nga xamante ne moom la tànn vox populi ca ni euh, tànneef googu leen mën naa jural tas tasaaroo ci benn bokk yaakaar de ndaxte am na ñoo xamante ni euh, taxaw tànnul rek wala buñ tànnul seen jegeñaale rek ñu daal di fippu moo tax APR di woo seeni militant ni Macky saal képp ku mu tànn rek ñu daal di ànd ak moom boot ci ginnaawam APR nag ñi ngi xalal yoon xamante ni moo di njiitu réew ngir mu tànn candidat bi war a jiitu coalition boobulee bu baax njiitu réew bi sur quotidien naan samedi bi nag mooy samedi bu dëgg waaye Macky Sall nag tànneef gu risque lay def nii ndaxte am na ni bu leen tànnu rek boo moytul nañ yëngu-yëngal enquête yéene kaay ni heure bi bi te candidat bi kenn bi lee dinañ ko xam ak luñ ci mënti wax rek coalition benn bokk yaakaar moo gën a yàgg ci coalition yi nga xamante ni moom lañ sos ci Sénégal ndax lu ëpp fukki at a ngi nii njiitu réew koy téye ci loxoom te loolee nag yombul waaye nag luñ ci mënti wax rek njiiti jëwriñ yi di Amadou Ba jamono ji nag moo gën a jekkal taxawaayam ma ngay sànni karawaas l'observateur ni Macky Sall mooy kilifa bi nga xamante ni mu ngi souffrir bu baax a baax 24 heures moom sampub laaj ni kan moo war a sol mbubb bi nga xamante ni moo war a jiite coalition Benno Bokk Yaakaar ba ci yi nga xamante ni mooy ñëw waa njiiti mi tey jii convoqué na ñi nga xamante ni ñooy leaderu benn Bokk Yaakaar foofee ca palais ba moom Macky Sall xam na li nga xamante ni mooy doole njiitu réew moo tax képp ku nga xamante ni moom lay tànn rek dina ko arrangé bu nu sukkandikoo si 24 heures yéen kaay yi ndaxte bu tànnee candidat bu bon rek mën naa doon posan ci moom laas ni Macky Sall mi ngi ci épreuve bu méttee métti moo tax waa APR di partem boobule di wëpp bépp militant bu ca bokk ne képp ku nga xamante ni njiitu réew mi Macky Sall tànn naka rek nanu bootu ci ginnaawam l'indépendant yéen kaay ca jamono jooj nag mu fësal ci xanam mu njëkk waa F24 démb nag dañ doon ak ñi nga xamante ni ñoo di taskat xibaar yi di askan wi yëngu-yëngal nee na lii dafa yomb trop ñu bàyyi Macky Sall muy doxale nu ko neex te loolee nag duñ ko nangu moo tax nag ñu aan askan wi nanu def bruit bu baax a baax ngir Macky Sall dégg leen source a ñëwaat ak ñun soldat Sénégal yi nga xamante ni ñoo nekk mission des Nations Unies foofee ca Mali alxamis ba léegi tàmbale noonu ñibbisi fi nga xamante ni moo di ci réew mi su naal bi ne réewu Sénégal nag li ëpp ci koppar yi ñoom ñoo koy dépensé li ko waral moo di novembre bii di ñëw la ñu waroon a ñibbisi fi nga xamante ni moo di ci réew mi ñoom nag nañ dépensé xaalis laataa ñu leen koy remboursé Habib Socé am na ndam moom bi nga xamante ni dañ koo taxaloon ci mbiru njuuj ci wàllu or libération yéenekaay dina xam le ni tribunal setal naka wecci nee na kilé di Moussa Touré ak Cheikh Tidiane Diakhaté war nañ ka dàmp lu toll ak juróom-benn fukki million ak juróom-benn lu tekk juróom-benn téeméeri junni mbiru Locafrique libération yéenekaay di xam leen Imagino Moreno ak Michel Borelli ñoom ñi ngi ci contrôle judiciaire ginnaaw bi nga xamante ni juge bu sixième moom moo yor seen dossier tribune yéenekaay ni coowal mbëkk bi ba léegi jeexagul nee na démb rek gennub gaal gu yoboon juróom-ñett fukk ak juróom-ñetti doomu aadama moom moo teer foofee ca Tenerife sport ak stade yéenekaay éliminatoire CAN Rwanda Sénégal tey bu juróom-ñaari waxtu ci ngoon jotee lay am yooyu nag dañoo bëgg a gañe rek ngir seen qualification gën a rafet match Sénégal Algérie di match amical bu ñu war a amal fukki fan ñaar ci weer wi ju nekk Sabaly moom couloir droite moom du ko xëccoo kenn waaye Abdallah Ndour ak Jacobs ñoom nag couloir ñu koy xëccoo ba léegi kan mooy titulaire bi sunu làmb lan